waaw les enfants yéen du ngeen ma expliquer TikTok nan lay marché Mam dal gis naa fa rek ay xalé yo xam dañuy xey suba ba ngoon di duggal ay vidéo di def ay manière naa ngi di def xolol di jaay ay affaire yooyu noonu kon moy TikTok non la wara def wala expliquer len na ñew len sama inbox ngeen explain ma nan lay defare TikTok ma def ni ñep. ah. waaw les enfants yéen du ngeen ma expliquer TikTok nan lay marché Mam dal gis naa fa rek ay xalé yo xam dañuy xëy suba ba ngoon di dugal ay vidéo di def ay manière naan di def xoolal di jaay ay affaire yooyu noonu kon mooy TikTok noonu laa war a def wala expliquer leen ma ñëw leen sama inbox ngeen explain ma nan la ñuy defaree TikTok ma def ni ñëpp ah. waaw les enfants yéen du ngeen ma expliquer TikTok nan lay marché man daal gis naa fa rek ay xale yoo xam ne dañuy xëy suba ba ngoon di dugal ay vidéo di def ay manière naan la ñuy def xoolal di jaay ay affaire yooyu. noonu kon mooy TikTok noonu laa war a def wala expliquer leen ma ñëw leen sama inbox ngeen explain ma nan la ñuy defaree TikTok ma def ni ñëpp ah